xoolu meen rab doowul ba ku def ko mën doon yombu lan lay wax waa kumba bu ma réeroon sama yoon lan lay delloo bëgg ku leen doon wax tey bombu bombu raxas ndab la ku leen doon wax tey ay ne ko yaa ma ay ay mais di def mu wéetu boy express kenn waxagul woon ket ket may def lu mel ni yaa fi gën a ñun ñëpp dem ba des The map down without the fake red Em bên lại đu nè bánh nhắm chỉ số màn để get like breaker dance Nhóm có đẹp mỗi I burn it, burn it, burn I burn it, burn it, burn it, burn it, burn it, burn it I burn it, burn it, abone ma ma njëkk jooy gaay yëpp dañu bett doo exporté rap no maay du wan fii gisu malu booy wax ñu leneen wax ñu leneen noo boo amee sa reeb na ko dégg sa mère teru dee nooy booy ñu ngi dégg sa mère du am trêve booy te du am waaj fag boo parewul ak nee noo bu ñu song kenn run ngay gis may gis ci ginnaaw yéen noo koy sekk may gis riñ yow ngay gis fii jarul si jàpp ñoom ñëpp laa tiim si ñoom lay metti metti metti metti metti metti metti metti metti metti metti metti noo day metti noo day metti def ko man day metti noo day metti noo day metti si noo lan laay wax waa kuñ ba ku def ko man doon yombu lan laay wax waa kuñ ba ku def ko man doon yombu lan laay wax waa kuñ ba noo day metti def ko man day metti noo day metti noo day metti si noo lan laay wax waa kuñ ba drill wall over normal I like we touch ginnaaw lay jóg jarul lay coono foog nga dégg daay bi cas su gindi eh what the fuck comme militaire booy ci guerre bu ma gëm booy ndax poussière dem rek dem rek du ma tey comme julu dem fi nga nee daay jafe dem fekki fa nee fi nga nee daay jafe dem kenn mënul bëgg fi ma bëgg dem di toog sa lu bon kon toog si ko booy di noqe di noq di noq di noq di noqe gën a gàtt xel bëgg toog suñu bopp ma dem ba lu weex mais lànk du xoom wóor ñu fi fekk dama waat du ma toog noo du ma chien kon ma ko di sama bopp ma ne ko sama bopp a mbaw mbaw mbaw sos ñi fi nekkoon reer bi fi des biir bi du fees dama wàtte du jeex man rek may jéem du ma tontu kenn du ne sama weccaru changé lu lay motiver ñun lu ñu dund neewi du res abadan day des su may der bul merci noo day metti metti metti metti metti metti metti metti